jaajëfati jaajëfati sama gars yi man la Mister Shake depuis Brooklyn New York tey nag jamono dafa leen benn vidéo ci information bu ma dégg bu ma jaaxal trop mooy ne Youssou Madjiguène Ndour dafa bàyyi way loolu nag man ba mu ko déggee xaw na ma jaaxal parce que gars yi dañ ne Youssou Ndour depuis ba Thione Seck papay Wally Seck génne àdduna ba léegi àdduna Youssou Ndour dafa mel ne dafa soppeeku Youssou Ndour gisatuñ ko mu répété Youssou Ndour gisatuñ ko mu def studio dem studio gis Youssou Ndour gisuñu ko mu bind kon ñii li ñu bëgg wax mooy ne Youssou Ndour dafa bàyyi way ngir lan deewu Thione sekk dafa am lu mu def ci moom ñun dañu yaakaaroon ne bu ñu xëyee dañ dañuy wax naan Wally sekk dafa découragé mënatul way de façon Wally mënatul way ndax papam dafay doog a génn àdduna lu bon bon xanaa dina toog ba quarantième jour bi en ñeent fukki guddi bi ñëw ba dem ci la Wally Seck di tàmbaliwaat di way moom ak Ramdan ndax fi mu nekk gis nañ ni boîte de nuit yi tijjiwaat nañ leen Sénégal musiciens yi commencé waat nañu tëgg waaye Youssou Ndour ku ne dafa bàyyi way man yaakaar naa ne loolu fake news la fake news mooy maanaam xibaar la boo xam ne du dëgg ndax ñëpp xam nañ ni Youssou Ndour musique moo koy dundal te Youssou Ndour dafa ne woon moom ci boppam moo ko wax moom nee na du bàyyi way mukk yàlla na yéex ñun xam ne ni Youssou Ndour bu demee ba mënatul way rek c'est parce que baatam dafa am lu ci nekk comme li dal Kumba Gawla la sekk yàlla bu mu dal Youssou Ndour ñun foofu rek lañuy gisee benn li war a tax Youssou Ndour ne day bàyyi way c'est vrai que nag Thione Seck gaañoom génn àddunam dafa bett ñu bëri ndax Thione Seck dafa nekkoon di préparer albumam bu mu tuddee CEDEAO album bi dafa ne woon ay volume yu bëri bëri bëri bëri la war a doon ci la nekkoon nag jékki-jékki mais gis nga yàlla li muy def gis nga yàlla li muy def jàmbi ak pexem jàmbi ak ay bëgg-bëggam mais yàlla ak dogalaam kon nag xëy na gars yi loolu lañ bëgg wax ne xëy na Youssou Ndour lii daf ko war a yee Thione Seck da ka daan wax da doon wax ne moom ñoom li leen dese ci dund bëriwul bëreetul bëreetul kon yëf yi dafa war a rafet mais ñëpp gis nañ ni ndesaan moo ko Youssou Ndour c'est vrai que amoon nañ ay jafe-jafe waaye ba ba mu gaañoo ci lañu suul jël lépp daal di daal di suul waaw lii daal benn information la bu ma dégg boo xam ne man dama ne lii fake news la mënu ko gëm mënu ko gëm ñëpp xam ne ñu Youssou Ndour du mës a bàyyi way Youssou mës a bàyyi way te euh, ndax moom musique moom mooy passion même bu dul dara aussi dafa am ay ñu bëri ñoo xam ne ñu yaakaar ci moom muy muy euh, euh, le super étoile ñoom Mbaye Dieye Faye ci lañu yaakaar ngir mën a dundal seen njaboot ñu ci bëri waaw léegi gis nga Youssou Ndour boo ko Macky dafay ministre euh, conseiller mu ne dafay bàyyi way mu toog ñaari at ñetti ay wayul gis ngeen nu mu def super étoile ci la Jimi mbay bàyyi ci la Habib fay bàyyi orchestre bi mënoon na fa jógee daal di tass waaw aduna nak li dafa wara yé yee ñëpp ci aduna ndax tay ñu ngi wax abib euh, Habib fay gis nga momit it génn aduna adduna amul solo Thione Seck génn génn aduna ñun li ñu wax rek moy nit ñi il faut ñu bàyyi bàyyi xel ci li li sax dafa ma permettre mo waxat ci benen sujet te ndax tay zapping la bëgg def zapping manam damay jël sujet yu bëri ma ci wax deuxième sujet bi moy dañu gis ni situation politique euh, Sénégal que ne Ousmane Sonko gaay ba ko gaay ba léegi dañ ko tek beut ndax dimb dama sétan luma muy Farba Ngom nga xam dañ ko invité ci ben émission Faram Facce mu nek fa di yak lu né Ousmane Sonko di wax Ousmane Sonko massage bi mom mo fa dem yemul rek ci massage mu dem ñu maasal ko ñu bëssal ko lenen wax jojju wax ju rafet ci dëkk jo na dëkk boo xam ne demoon na ba fukki xale ak juróom daal ci ñàkk seen bakken ngir aji saar xale boo xam ne dafa dafa dafa të xale boo xam ne dafa ñëw wax ay wax yoo xam ne ñëpp xam nañu li muy wax du dëgg ndax kenn siifu ko Ousmane Sonko siifu ko waaw ndax certificat médical bi wane ne na kii kenn sëyul ak moom ci fukki waxtu ak juróom-benn loolu yaakaaroon nañ ne gas nañ ko bu suul ndax sëñ Muntaxa moo moo woo activiste yi ñëpp ne affaire marché dañ koy bàyyi Macky Sall tàmbali bàyyi nit ñu jàppoon Clédor génn Assane Diouf génn euh, Guy Marius Sagna génn xale yooyu ñu jàppoon génn nañu même Kolda rek dégg na ñi fa jàppoon ak jaww be xale yooyu yëpp ñu ngi leen di commencé bàyyi kon nag tey bu ñuy yeewoo déggaat waa APR di gën a xàmb yëf yi naan yëf yi mu dem tribunal man Mister Shake yàgg naa leen avertir wax naa leen waxoon naa Macky Sall na bàyyi mu sedd affaire ba ñuy dindi mbubu Euh, député Sonko ci laa ne Macky Sall ba mu dindee mbubu Sonko mën na fa yem mu jeex mais ñoom ñu dëgër bopp yaakaar ne am na ñu ñu jàpp mais gis ngeen Sonko kenn du ko laal Sonko kenn du ko laal ndax xale yi dañu ko bëgg waaye du xale yi du du Sonko rek moo génne xale yi ñëpp xam nañu ne xale yi dañoo sonn liggéey ñu lekk ñu goruñu yettuñu ñoom waa APR loolu moo war a nekk seen priorité ñun liñ leen di digal ñun activistes yi liñ leen digal mooy nañu jéem a seen mandat li leen dese nañu jéem liggéey Macky Sall ne day génn ay milliards def ci mais nag génn milliards mu def ci terre bi nee na day daw d'ici 31 décembre mais dinañ xool dinañu xool ndax dina daw d'ici 31 décembre loolu moo war a nekk seen waaye teg Ousmane Sonko bët ne Ousmane Sonko du bokk ci élection yi ba pare euh, troisième mandat Farba Ngom ñu laaj ko mu naan yàlla mooy joxe troisième mandat Macky Sall mënul def troisième mandat loolu la war a def ci bopp waa APR loolu ngeen war a def seen bopp ngeen bañ a fexeel Ousmane Sonko ñun loolu lañ leen di digal gis nañ opposition bi ku mel ne Issa Sall Macky Sall jël na ko def ko ministre conseiller gis nga Macky Sall lu muy def di leen jéem a xëcc xëcc Idrissa Seck xëcc Issa Sall mais Sonko kenn mënu ko xëcc fi mu nekk ni Macky Sall moom xam na ne dooleem dafa wàññeeku lu bëri waaw ñun daal lu ñuy wax rek mooy affaire bi bu mu dem tribunal Adji Sarr xale boobu warul mën a taalaat dëkk bi bu leen xool ne nag yëf yi nee na salaw rek ngeen ne yëf jeex na parce que gis nga luy taal dëkk lu koy indi lu ndaw lay doon xale yi dañoo sonn xale yi dañoo sonn dañoo soxla liggéey Sénégal li fa am dafa dafa doy waar li fa am dafa doy waar waaw waa Amnesty Nation Amnesty International dem nañ ba ñoom seen bopp ñu ut ay avocat ñu ne dañuy porte plainte Macky Sall gis nga président Biden président Amérique ba muy invité ay ay ay ay président africain Macky Sall ci parce que Sénégal dañ dañ ko commencé teg bët nit ñi démocratie amu fa kon loolu war na yee Macky Sall mu xam ne dooleem dafa wàññeeku te li li li amoon dootul am ñun daal ñun loolu lañ koy digal liñ koy digal mooy mu xool ne Sénégal warul takk ngir ay affaire tukkuleur rek séeréer rek temps yu loolu lañuy dégg ay manjaay ma jàmbal ah di wax ay wax étudiant séeréer di xeex seen biir ak étudiant joolaay voilà Sénégal bëgguñu mu tak Sénégal bëgguñu bëggu mu tak gis ngeen activiste yi ci wax ay Ousmane tokara indi sen bop ay problème yeena ngay dégg bon ñun nak ñun nak lu ñu waroon def def nañ ko wax nañu légui ñun ñi ñi ñaan rek moy jam am Sénégal ñu bari ñi naan monsieur Cheikh da nga ragal ak dañuy euh, Ousmane Tounkara dañ ko delloo lo tax ngay tit ñun amuñu lu ñuy ragal ñun Ousmane Tounkara def ak këyitam mo jeex Ousmane Tounkara du du wa Sénégal ñoko yobbu kayitam moo jeex c'est vrai que nag dañ kaa boole mais buñ ko boolewuloon bu tey buñ ko romboon ci mbedd bi gis nga ne këyitam dafa jeex dañ ko yóbbu man américain la waaw man américain laa même bu sax affaire américain ñun nekkuñu fi pour saaga Sall wala nekkuñu fi pour saaga waa APR ñun li ñu leen di wax rek mooy liggéey li ci des bu seen mandat jeexee ngeen abal voilà gars yi loolu benn zapping la bu bu ma bëggoon def dinañ continuer di leen toppal actualité bi like leen partager leen abonné leen Mister Shake ngeen di am foofu jaajëf.